sama yaram dina neex Salimata écoute c'est sur RFM ma ni ko damay balance soirée boo fi dem balaa woykat bee way day balance may leen ma ma maa ngi balance te ñëw déglu leen ma balance Salimata René Cabral moo ko way damay balance dëggantaan sur RFM 94 point 0

Samayaram yaram dina देख गेल सलीमत है lan moo tax bu woykat toogee di balance dañu koy bàyyi mu balance en paix may balance réew mi di ma laaj abaa koo yeb dinaa balance nag ba cakkan kan que première partie bi yëpp sax du ma ko balance ça dépend <laughs> wallaay dëgg la wallaay man la kenn mënta nat man la kenn mënta nat Yacine musuma laa wax ba may nekk animateur animateur koñ ba demoon ca baalu njaago yi fa anime loolu musuma la ko nettali ah ñàkk naa laa nettali lu neex wallaay dëgg la dem ca baalu njaago yi di fa animé njaago yi di baal may animé njaago yi di baal ndeke ñoom njaago yi tarkal euh, seen baal bu seen yaram tàngee

dégg li ma mami mbeng làkk ci ay tubaab nee na ma tu es imprévisible <laughs> maanaam ku kenn mënta natt Yacine s'il vous plaît accordel kii li mu lay laaj s'il vous kii li mu lay laaj il t'a demandé ta main donne-lui ta main et allez danser là-bas dors <laughs> Yacine lii tarkal ba ñuy xale te bu jotee dañ daan wàññi lamp yi buñ ko mënta fay wàññi lamp yi ba mu xaw a nekk obscurité <laughs> laa ilaaha illallah yaasin ba xam nga ni suñu baal bi mujj bi may fàttaliku suñu koñ amoon na benn waaye bu tuddoon ab poy séeréer ab séeréer la moo doon garde bi muy garde nu teg euh, son bi eli xale bi jël waa ji jël xale bu jigéen bi mu nennu maanaam bi mu yàgg a teg ba daal <laughs> ñu ko jëlee fekk nu fay lamp yi muy avancé xale bi avancer mo xalé bi di avancer di di avancer di avancer xalé bi arrière ba ci lampe bi lampe bi nek nak une surprise pour waa ji ndax waa bi mi avancer mom rek avancer wul won yow eh, yow yoonu yokute yow yoonu yokute <laughs> ñu tal lampe bi mu bëgg jël yépp bëgg and ak mom genn ci bit dem fekk fa boy séeréer ci buntu bi di genn boy séeréer ne ko bafaan eh, damay genn dama xaw saf saw mu ne ko ku nga genn bula nexé nga genn waye coca petit model bi du genn lii rek ngeen di def bitéel yi di manqué foo jëmee coca petit modèle bi waaw lii du coca petit modèle <laughs> nga tey bu ñuy wax ci mbageel ku ci nekk ci ñun am na koo xam ni euh, moom ngay bëgganteel donc wooko rek euh, woo rek euh, ne ko ndax dégg nga tey animation Abba bi parce que ci mbëggeel laa génn tey ci xol yi laa dugg <laughs> yaakaar naa ni taw premier partie bi yëpp dama koy balancé léegi directeur envoyé ma message de benn ci directeur yi. Ne me si tu comprends pas le concept de dëggantaan c'est promouvoir euh, le mbalax. mën ngaa wax ba li nekul kabo mbalax. Li du kabo mbalax. la ngay dégg ci souf lu mu doon. li ngeen dégg ci souf lu mu directeur bu message ñew de ngeen balma. wala sax wala sax wala sax taxawal taxawal balaa message di ñew xaaral balaa message di ñew xaaral ma def ni. Fa defee ben message baña yexi. yegg euh, promouvoir euh, le mbalax Wa kay am leen. dañuy mbalax ñun njaago yi mbalax Amish Barxam ma nga Sonatel ba nekk ca Parcelles Amish maa ngi lay kontaane nee na ma xaar ma ñëw yónnee la sa ndékki yaa ngi féexal sama xol bi Amish tarkal euh, njaago yi danoo mbalax njaago yi danoo mbalax dinaa ko di nit boo kontaanee da ngay manifester sa contentement Amish daf ma orange mu ne nànk bàyyi leen seen caaxaan yi te sol sa robe fente droite sol say escarpin mbaa sa robe isawara mbaa sa zipp isawara mbaa rob euh, kii robu turfet yooyu tarkal eh, xale yi baanatunu robu yooyu nga xam danaan ànd ak sàkk xam nga robu turfet yi rob yi ànd ak sàkk nga xam day ànd ak sàkk ak babet nga baali jekku xoolal magum jëmm euh, bu sol rob bu am sàkk ak babet au cas u boo lekkee ba ba ba ba yow ba yow li nga lekk attanatoo ko euh, kii pour sooy gàll <laughs> tubaab lu ne préparé na ko mën ngaa dem ci sa page ba noppi naa foofu mën ngaa dem ci sa page ba tubaab préparé na yëpp xale yi dañ daan dem baali sol rob lonko saak robe bi turfet la tudd xale yi xamuñu ko léegi ñu takkal la ca babet nga takk ci kaw sa lii loolu nu mu tudd li ngeen daan takk seen kaw bopp bi dan sertet am na neneen nuñ ko daan woowee am na neneen nu mu tuddoon ñun taam yi nekk xale am na neneen nu mu tuddoon ah bandoo déedéet yow yow sertet tudd woon sertet de léegi la sertet ci mooy ñu mooy ñu defaraat la temps xale amoon na neneen nu mu tuddoon neneen xaaral léegi mag mag ñi envoyé ma ko yow ñii déglu am na ay meer di dañ la koy envoyé léegi Yacine maa nga ca baret Yacine nga naan ma ay baret mooy yu ndaw yi maa nga ca baret ñun noonu lañ ko daan woowee ñu naan xale bi sa robu turfet baax na sa saag baax na sa babet baax na ak sa baret Ndeye Rama ñaata at nga am. Diagne Washington ñaata at nga xale bi

ay mbëgge maa ngi koy kontaane ma nga ca sénégalaise de l'automobile Ami Mbuub maa ngi lay bégg Abdoulaye Yacine xale bi namoon euh, naan lan nga naan xale bi xale bi xale bi xale bi xale bi ku ne mën na cee yëngu de ku ne mën na cee yëngu ñaar la yu mën a ànd fi ñu toll nii bu dëgg neexee yàlla rek son bi nga xam ni moo yëngal réew mi fiñ toll nii son bi nga xam ni moo lëmbi réew mi mooy partira bu pap Diouf le pap dafa génn sensibiliser xale yi ne leen toog leen ngeen gëm ko mën naa nekk fii xale yi ne ko ndax du yaa woyoon partira nga xam nga Sénégal euh, ay publication neexul commentaire a neex fan yee lu ne dañ naa ko ci réew mi lu ne naa Paaba ay fan yi ak Alaaji Asan Alaaji Asan tamit moom génn na euh, kii sensibiliser xale yi an xale yi bu leen yàkkamti seen wërsëg ñu ne ko lu lan moo tax nga jógee Thiès ñëw Dakar moom faaw mu esthétique ko xale yi tontu nañ alaaji Assane de alaaji ne leen eh, bu leen yàkkamti seen wërsëg toog leen xaar xale yi ne ko dañoo bëgg nga wax ñu li la jëlee Thiès indi la Dakar ah, alaaji loolu moo il faut ma estati ko kii eh, yow Georges foo jógee yow bàyyi reetaan te wax ma fan ah munoo wax ma bàyyi <laughs> ma bàyyi la nga doxal. <laughs> waaye nga dugal ma foo jógee laa wax. ah fan. damay dem ci page yu Facebook bi xool ñi nga xam ne dañoo mel ni man. man Yacine boo defee benn eh, publication du ma xool publication bi man commentaire man dama bëgg commentaire moo tax damay tontu commentaire yëpp lay tontu oh, xam naa ñi star star lu man bu ñu ma gisee ñu baal ma man simple animateur rek laa man ku commenté ma tontu ku ma saaga ma ree la ku commenté lu neex ma bindal la ay kër ku commenté lu indi waxtaan loo xam ni euh, intelligence lay laaj ñu waxtaan ci man ak yow man dara dama saf <laughs> de l'écoute sur Maxtar te duma ko ay papa Diouf fa mën a waay. ana ngeen. ana ngeen. ana ngeen. ana ngeen. eh àjjana commentaire bi di ànd ak partage bi nu positif ñi laa wax man waxuma kenn koo xam ni dangay ngay dugg lire 300 messages yi yëpp baax nga ne xaaral ma toj tal ko naan abaa yaa soof loolu tojtal laa ko wooye tojtal <laughs> mënoon ngeen maa may rek ma am lu kenn amul unanimité loolu de mënoon ngeen ma ko may rek waaye ñiy tojtal ba tey yërit ci ngeen bokk maa ngi leen di jaajëfal am na ko ne ma abaa ko soof nga anangen yas anangen ana ngeen puy ana ngeen maam yow dafa tel ci yow pour ay bëgganteeg ay nobante yow mom sama dom ji euh, conseil ma la loolu bàyyil ma wax ak ñom yasin rek ana ñi bëggante ana ñi nobante ana ñi nga xamni ne tarkàll buñ la jappalé direct dañuy audio man ko bébé mangi deugantane mais ma ma noppi léegi je te rappelle arrête de faire genre xaar dama koy wax bëgg nga ma si sa waawul laay dox waaw lu ma sama yaay di wax ne ma sant yàlla rek daf laa war ma ne ko yaay du tax bu ne ma ah doo lim fukki xale ci réew mi yu am âge bi nga am te duñ ci def sa tur ma ne ko yaay wax nga dëgg de fukki xale mënoo ko lim ci réew ci domaine yëpp nag moo xam muy sport wala muy culture wala muy business domaine yëpp mënoo lim ci réew mi fukki xale yu gën a influent ci réew mi génn ci sama jëmm ci le natif de Yeumbeul l'enfant chéri des 16 millions de sénégalais l'employé de Youssou Ma l'ami de Wali Balagosek. l'ami des ma ni ko loo bañ ñombar bañ ñombar nangu ko ak mën a dawam tarkal euh, abaa soof na la abaa munul munul wax munul anime munul dara waaye fukki xale doo ko lim ci réew mi yi gën a influenté Abba du ci dugg. parce <laughs> que commentaire yi am ci yoo xam sax day dawal sama yaram bi wax dëgg yàlla am na commentaire yoo xam ne mënu ma lire ndax kii day dawal sama yaram bi da ngeen a baax rek da ngeen a baax rek man sama rôle mooy bëggal leen ah sama rôle mooy ngeen di kontaan bëgguma kenn mer stress bi nga xam ne moo ne ci réew mi man maa leen ko war dindil ba mu jeex donc loolu lu ma war la donc du loo xam dama koy def mu neex ma déedéet coob sama euh, ki yàllaa ko nattu moo ma ko def muy sama nattu ma leen koy dindil donc euh, da ngeen a baax maa ngi leen di kontaanee bu baax am na yoo dama sentimental nag su ngeen ma wax damay jooy ñoo xam su ngeen ma ko wax damay jooy waaye ndogal la lu yàlla euh, yàlla <laughs> wallaahi am na solo kàlla iñaan baaxul la iñaan wóorul sama gaa ñi maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax a baax ngi ñëw de gaa ñaa ngi ñëw bu baax léegi nag fi ñu toll nii dañuy dem fii tey xam nga fii tey 14 euh, novembre bii la Youssou nee na euh, na 16 millions de sénégalais yi woote ci 88 628 nga def 20 20. wax son bi nga bëgg Youssou wayaat ko mu wayaat ko fii tey Youssou nag euh, yow wàccoo nga ñun académicien bi l'homme des trois générations l'ambassadeur de la culture africaine le roi du mbalax Awa Ndour wayel Marie Lamine Daaro Ndiaye Fatou Bak Daaro may mën a ma ma bend boy jo tey la wàllu ay waayi réew la woon fàttalikul talaata ndeero wuy sala sala mendanguraya Jalim jalo mën ngeen maa baal ma wuti ay koppar léegi ñëw ñu daal di yegali à tout à l'heure mën naa ni meew mu seddu guy ndax nekk super héros tey de sama super héros bi dafa mel ni ku sonn te mu ngi soog a yeewu waaye lii mbaa jàmm la ah maa ngi soog a comprendre li mu naanagul meew mix bi moo tax mu mel nii saa su yeewoo moom lay njëkk def dafa xam lu baax nag meew mixwell dafa am protéine ak ferñeent yi tax muy gaaw a màgg te am doole am nay vitamine A mi nga xam ni dafa baax ci ay bët ak vitamine D biy dëgëral yax ak bëñ <laughs> Mixwell moi secret super héroïne ndaw si dafa romb derab am éclat mu rafet lol, di scintiller lol. ma ko yow lan ngay jëfëndiko mu ma savon de Marseille créole dong laay sangoo Dom ji tamit lèr nañ savon de Marseille créole De di savon bo xamni ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ci savon bi mu naturel lol. fumu ko mëna amé da ngay woté ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06 fils dama jëndal ma liste tuyaux yi ak enjoué ca quincaillerie Alioune dañuy tàmbali installation yi suba wax ko ni matériel yu CCIS rek nga bëgg. waa papa lu tax yu CCIS rek. <laughs> doom sama bopp nga may fàttali ak sama pap fanweeri at ci ginnaaw ñun plombier yi CCIS lañu taamu ndax qualité am dinañ fa fekk itam xeetu tuyaux yu ñu soxla yépp ci suñu chantier ak forage. maa ngi doog a xam lu tax nga taamu matériel CCIS papa maa ngi dem léegi léegi. taamu leen qualité CCIS. Sénégal ay tuyaux PVC PE ak forage produit une certifié qualité ak environnement CCIS mom le Sous l'égide du ministère de l'économie numérique et des télécommunications en collaboration avec la présidence de la République du Sénégal est organisée la première édition du Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique sous le champion digital placé sous le thème les technologies émergentes au service du développement économique et social. Son Excellence Monsieur Macky président de la République public procédera personnellement à la remise du Grand Prix le 26 novembre 2020 au Centre international de conférence Abdou Diouf, en marge de la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième édition du Grand Forum du numérique. Sont concernés par ce concours tous les Sénégalais travaillant seuls ou en équipe dans le cadre d'une start-up, résidant au Sénégal ou à l'étranger, ainsi qu'aux étrangers résidant au Sénégal, âgés de plus de 20 ans. Date limite des inscriptions le 2 novembre 2020. Pour toute information, visitez le site site www.forumdunumérique.sn tey naa koy toggal ba mu xam ne lépp dëgg la hmm, sa ceeb bi neex yow kañ lekkal rek Wa chérie li nu mu demee xam nga resto. resto luy resto. resto sauce soja la bu neex di relever sa goût di colorer say plat yomb jëfandikoo nekk ci sachet. sauce soja resto loolu kay cuisinier yu mag yi rek ñoo ko xam sauce soja resto am na ci boutique yëpp grossistes yi sax dañ koy jaay neex ci plat sénégalais yëpp gis seen bernde yeeg seen togg yi gën a neex gën a saaf sauce soja resto dina leen gunge ci màggaluk ren gii dina nekk Touba gunge leen te képp koo xam ni da nga di commerçant yi daañu la ci gunge waaw gàmmu ren ji tamit sauce soja Soja Resto dina nek ci seen wet fep fu ngeen di gamo sauce Soja Resto goût bu neex ñetti façon bouteille bu mag bi 750 ml Amne bouteille bu ndaw bi 150 ml Amne na sachet bu ndaw 25 ml Beaucoup defé ci sa ceebu jeun doy relever goût bi goût ba neex sauce Soja Resto ci sachet la nek amna ci boutique sauce Soja Resto ak toj tener. neex l'Institut Polytechnique de Dakar, IPD, Thomas Sankara, l'Université professionnelle africaine, leader dans les sciences du management et des gestions, les échanges commerciaux et la logistique, les sciences et techniques de l'informatique, le génie civil et la licence en ressources numériques du BTP BIM, les réseaux et télécommunications, l'électrotechnique, informe les étudiants et nouveaux bacheliers que la rentrée académique 2020-2021 se déroulera selon le calendrier suivant. Mercredi 11 novembre 2020 première et seconde année de licence toute filière et formation métier. Mercredi 9 décembre 2020, troisième année de licence et master 1. Mercredi 13 janvier 2021 pour les master 2. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent dans la limite des places disponibles. Vous êtes nouveau bachelier. Profitez des offres de bourse de l'IPD et de ses partenaires. IPD Thomas Sankara, c'est près de 30 ans au service de l'éducation et de la formation. Situé à Sud-Foire, près du SAMU municipal. Contact 33 867 90 45 ou au 77 529 84 85 ou au 77 529 84 88 ou retrouvez-nous sur notre site web www.ipd.fr scène. waa kon euh, maa ngi leen di kontaanee bu baax euh, DMC Couture di leen bëggee bu bare lu baree baree bari Baye Mabo Kassé sama xarit la dem ba gisee maa ngi lay bëggee sama waa ji Modou Gueye borom génération Futur Média yow tamit lu dundu doy la ah. Zipra maa ngi lay kontaanee yow tamit Zipra ak waa kër ga ñëpp maa ngi leen di bëggee yéen am leen jàmm rek kontaan naa ci yéen lu baree bare kontaan naa ci yéen beaucoup comme ni ko xale di waxee kontaan naa ci yéen beaucoup ah kon euh, war a accompagner fii fii tay bi seen sponsor yi commencé di ni ah waa CO O bi ak euh, kii bi ah, ñi ñëpp ay kii lañ ay sponsor macha allah kon boo kon boo demee ci fii tey bi da ngay teel a dugg ci yi ci digital beeg ci télé beeg ci lépp awa yéen ñiy déglu bu dee bëgg nañ seen yëf gën a fës fii tey baa ngi noonu mm, yéen tamit ñi bëgg son Youssou Ndour interprété ko 88 628 2020 20 wayel leen samedi 14 euh, novembre euh, fi nga xam ni moom mooy euh, ca TFM ah, ak ci ay média wam moom yi nga xam ni moom moo ko moom Ndour ngeen tànn son yi leen neex. Fatou Écoute sur te bu leen fàtte nii fii tey bi c'est pour un mois quatre samedi yi ci biir weer wi boo ko gungee ci benn samedi bi mooy gunge nga ko ci quatre samedi yëpp avant pendant ak après communication yuusoo ma ci doy eh ku bëgg visibilité demal fii tey Et Don Diego, joyeux anniversaire. Le milliardaire saoudien Sherifa Bayou ibu Salamania. Diego, l'ami des Sénégalais. Goutiachi. waaye Adja si Mar sama yaay yai booy yow tamit joyeux anniversaire lo dund doyul borom grand théâtre Adja si Ndiaga Mar waaye yaay sur elle. Écoute ça. Ça c'est vrai. Écoute sur Partito gioco mai da

yusuf nga dimbali ñu rek xalé yu nenañ bul tok xalé yu nenañ bul tok nga juk taxaw nu yëngal yuusu bo toge do way da ngay waxtaan dañu bëgg nga juk taxaw way xalé ya ko wax waaw waaw <laughs> ay way yuusu da ngay juk taxaw nga way pitay tan len seni morceau 88 628 2020 20 waaye en tant que sponsor avant pendant ak après 4 samedi un mois fii tey ngeen koy am ak de la culture africaine Youssouma le roi du mbalax eh ouais samedi 14 ñu tàmbale ko biir TFM ak ay réseaux sociaux moom Youssou Ndour facebook instagram twitter facebook use? Why Wayouz, Why use? Are you? arrête de faire genre lépp looy def yow na nga ko man yow na nga ko am muy ci andi gistal ndax yàlla tegul kenn na mu mënul déggal bu ci indi ngistal Papa Omar Diaw ndax yàlla tegul kenn lu mu mënul Pap Omar Diaw eh way maam jan wallaay déedéet soxlawul Cheikh Tidiane Diagne nga ni lan waaye tey ngeen déggati dëgg tey Sénégal de football ngay déglu rajo mel ni yaa ngi seetaan télé léegi def cee rawati dañu koy def ci page Facebook RFM l'officiel ndaanaan yi nga xam ne tarkal la ñoo ŋànk reportage di réew mi nekk ci biir RFM la rajo leader nekk ay reporter leader tey Sénégal di jouer match à 16h Cheikh Tidiane Diagne ak Malal Junior Diagne ay waay Diagne yéen ñi fu ñu jëm ak réew mi. booy déglu seen reportage da ngaa mel ni ku xiif bay lekk bi de loo xiif xiif xiif bu ñuy reporter nga suur loo mer mer mer bu ñuy reporté soxol féex lu ñu mëne sa équipe wala ñu dominé ko bu ñuy reporter bu mel ni yaa gañe waaye ñi yàlla na seen jàmm yàgg waaye écoute sur Basiru Gaye borom Linguère ba même heure même fréquence même ambiance même délire avec le même fou Abad No Stress ci de dëggantaan sur RFM 94.0, la radio leader L'émission mère, Abad Abba